waaye ki doon def conférence bi mu defee conférence ba noppi ba àgg ci jullit sëñ bi ci géej gi jullit sëñ bi ci géej gi benn murit bi ci sikk sàkk amul kenn ñemewu ci sikk sàkk waaye nag pour war la rek léegi nit ñi logique bi ñuy doxee léegi waa ji bi mu defee conférence ba noppi dafa am ku yëkkati loxoom laaj ko ne ko dama lay laaj mu ne ko bisimilah mu ne ko laaj bi may lay laaj mooy sëñ bi bi mu julee ci géej gi maanaam nan la def ba dellu ci bato bi ndax bato bi daa taxoon di xaar sëñ bi ba sëñ bi julli ba noppi wala sëñ bi daa àndoon ak bato bi daw maanaam daal nu mu delloo ci bato bi la doon laaj léegi foofu bi mu ko laajee ma gis ne waa ji doon def conférence bi wax dëgg jéem naa jéem waaye mënta joxe benn tontu boo xam ne nii mën naa iqnaa koo xam ne nii xelam mën naa mën naa convaincre koo xam ne nii xelam rek lay jëfandikoo kon discours boobu am na fa mu walaa bale waaye am na fa wax boo ko fa defee dangay indi ay jiixi jaaxa ci nit ñi kon discours bi léegi war na noo xool lu muy gën a dëppoog raisonnement bi nga xam ne nii moo am ci jamono ji am na discours buy jàll tam ci biir murit gi la ñuy làmboo la ëpp mooy wane ne sëñ bi dafa ñëw ngir màbbu daara yi dañ lay wax ne la sëñ bi ba mu ñëwee daa tas daara yi ndax gis na ne jàng ak jàngale mënut li mu bëgg ci façon bu mel noonu boobu discours yi ndax mën naa jàll jamono ji ñu toll nii jamono joo xam ne ñëpp léegi dañoo jublu ci xam-xam gën koo dundalaat xale yëpp di jàng jublu si ndax boo leen bëggee présenté sëñ bi comme koo xam dafa ñëw ngir kontrom njàng ndax discours boobu mën naa jàll télé boobu mi ngi am na bu mel noonu mi am ci biir murid yi ndax discours boo xam ne nii jamono ji nekk mi ngi sukkandiku ci ñaawu njort ci keneen ki keneen ki nag mooy ki ñu bëkkalul yoon wi maanaam lu nit wax rek nga ne sëñ bi lay wax lu nit wax rek nga ne ñun lay wax daal di fës ko yéene tontu te na muy waxee ndax boobu discours itam valable na te moo ne sëñ bi teel nañoo jàng ci nax ju muy téere boo xam ñëpp dañ koy njëkk jàng wax joo xam ne ni xëy na du ay waxam waaye rotal na ko rotal gi mu ko rotal day tel ne dëppoo naag kooku la mu wax ndax dafa jàngale ne man léeg-léegi damay romb nit mu di ma ŋàññi waaye damay fegu wax ne kii de xam naa waxut ak man sax gannaaw ba nag kooku noonu la jàngale rek kon kiy wax di wàcc ci mbedd mi wax di poste ci maanaam net bi ak yu mel noonu audio yeeg maanaam yu mel noonu ñu koy tasaare ñu fas yéene ko tasaare audio nga fas yéene sëñ bi lay wax wala ñun lay wax loolu tam yàq day discours boo xam ne nii mënta walaabal jamono ju nekk kon yooyu xeeti discours la yoo xam ne nii war na noo laaj ndax mën naa nekk discours boo xam ne ni jamono ji nekk ak saa su nekk war nañ koy mën a jëfandikoo ndax niñ koy waxe waxin woo xam ne ni yow boo ñëwee doo waajal dara dangay ñëw rek ñu jox la micro nga tàmbali daanaka du am tem bu bu ñu xam du tënku ci tam lu ñu xam maanaam lu ñëw njëkk ñëw sa xel rek noonu ngay démarrer wax lu mel noonu wala langage boo xam ne nii foo ko fekk day mel ne kuñ ne koy défendre koo xam daal dañ ko attaqué mooy défendre ndax tam waxit woowu dëppoo naag jamono ju nekk kon yooyu ay façon discours la yoo xam mi ngi suñu biir ñu indi ko nag ci forme laaj ndax ba loolu diskuur yooyu ndax dëgg-dëgg mën naa indi ay tont yoo xam ne ni dana convaincre ki nga xam mooy déglu kon war nanoo gëstu tont yoo xam ne nii képp ku ñëw di déglu discours murid yi boo ko dégloo ba noppi la ngay dégg dana sa xel dana ko mën a jàpp tey danga ko mën a jariñoo tey dana la mën a convaincre kon ngir tont yu mel noonu nag la muy njëkk a laaj mooy ku nekk nga jàkkaarloo waat ak sa bopp nangu ne li ñuy wax dafa am ñu bare bari boo waxee lu mel dañ a la waa ji day wax rek waaye loolu waaye te loolu lu ñëpp gis la xam ko di ko dégg di ko gis di ko ja ko dund kon waa weddi ko moom wax dëgg yàlla dafay mel ne mooy daw sa responsabilité kon nangu ne mi ngi fi nu xool nag ku nekk xoolaat sa bopp def sa autocritique jàngataat sa bopp ba xam nan lañ mën a def ba dugal lu mel noonu nan lañ mën a tam ba tontu nit ñi tontu loo xam ne dañ leen dañ ko nangu waaye itam day dëppoog seen xel weddi nag ne waxtaane jagley sëñ bi am na solo loolu kenn mënu ko weddi waaye jamono ji ñu ñun liñ gëm mooy ne àddina bi liñ gën a soxla mooy sëñ bu mag bi ñu wane ko ci dimension humaine maanaam ci ak niteem ak lim nite ba noppi def loo xam ne nii nit ñëpp mën nañ cee jariñu ñu wane ko ci nite googu mooy tax àdduna bi mën koo jël ngir lee ko seen jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy dund kon liñ soxla léegi mooy ñu wane sëñ bi ci dimension niteem ak niteem pour wan nit ñi ne leen doomu aadama la waaye joxe na ay solution yoo xam ne ni bu ñu ko jëfee àdduna bépp mën nañ cee jariñu te mën naa régler lu baree bari ci àdduna kon loolu defe naa ne moom lañ gën a soxla tegul nag te taxuut nag ne dañoo wax ne kenn warta waxtaane jagle sëñ bi wala ay xar baaxam te defe naa ne ñi doon tànn tomb bi thème bi ñu ko doon tànn it yaakaar naa li ñu ci jublu rek mooy am na génération yoo xam ne ni ñu ngi yéeg ñu war leen a fexe bañ am yeew yëg-yëg bu baax waaye itam ñu xam seeni i aada ak seen cosaan xam seeni valeur ak seeni baax waaye itam ñu xam jamono ji lim laaj dëgg-dëgg bañ mën a ànd ak seen cosaan ba noppi jamono bi du leen raw loolu ñu xam ko loolu la nag lañu koy may mooy yennat yu mel nii nga xam ne mu ngi ci biir murit gi ñu nangoo toog jàngat ko jàngat boo xam ne lépp luy xeeti par parloo ak la kuréel def ciy génn waaye ku nekk indi ko na nga gis ne moom bu ñu ko defee mooy baax nga jublu ci nag luy jariñ mbooloo mi lépp defe naa ne loolu mooy solos waxtaan wu mel nii te jàpp naa ne ñi tànn thème bi tam lu mel noonu lañ ci jublu kon tënk bi ñuy tënk ni ko imaam waxe danañ tënk waxtaan wi ci ñeenti tomb danañ wax ci lan mooy discours ci boppam bu ñu ko waxee mooy lan ban solo la am ci tasaare ab woote waaye itam kiy def discours bi ban responsabilité la am ci discours bi bu ñu noppee dañ waxtaan ci yi nga xam ne ni mooy dëkk discours murid yi maanaam défi défi yi nga xam ne nii moo taxaw ci kanam discours murid yi ba bañ jàpp nañu la mu war a joxe dëgg-dëgg di dese na koo joxe su noppee dañ xool ay solution yoo xam ne nii jàpp nañ ne bu ñu ko defee lañuy jàmbat ci biir discours murid yi loola mën naa soppiku wala ak mën naa gën a kii bu noppee nag door a tëj waxtaan wi ci tënk. kon tomb bu njëkk bi mooy discours ci boppam waxoon naa léegi nag ne wax ji génne ci làmmiñ di dem ci ñeneen loolu discours lay tudd dafa am ci biir nag ay pàcc pàccaan yoo xam ne nii danañ ñëw ci kanam. kon discours ci boppam mooy wax ji la la làmmiñ wi koy wax ak la muy wax ca biir maanaam mooy waxin wi ak li ne ci biir wax ji muy loo xam ne nii nit da koy génne ci moom benn mu di ko wax wala mu di ko bind di ko yónnee keneen koo xam da koy déglu wala mu di ko liir la koy wuutaleeg yeneen waxtaan nag mooy moom lam ci jublu dëgg-dëgg mooy bàyyi jeexit ci ki koy déglu te it mooy xëcc ki koy jublu ki koy déglu jaarale ko moom yoon wi nga xam ne ni gis na ni moo gën a baax ci moom te moom lay waxtaanee moom ngir mu jaar ci loolu mooy discours moo ko wutaleeg yeneen kon bu ñu wax discours murit mooy lan mooy dañaan mooy message wala contenu bi nga xam ne nii moom la njàngaleem sëriñ bi làmboo te murit yi bëgg koo jàllale ci ñeneen ñi ci jublu ca tasaareem njàngaleem sëriñ bi ngir ñu jëfandikoo ko ngir mën a régler jafe yi nga xam moom la am kon loolu mooy discours murit mooy li ñuy waxtaane ci sëñ bi ci njàngaleem sëñ bi te bëgg koo jot li àdduna bi ngir àdduna bi mën koo jariñoo ci régler seeni problème loolu mooy diskuur murit discours nag ci déggin woowu mënta ñàkk ñetti élément benn bi mooy ki koy joxe ci boppam bi ci des mooy li muy joxe lim làmboo ci biir mooy risaala bi bi ci des mooy ki koy déglu ku nekk ci ñoom nag am noo war a mel ngir mën caa jariñoo ci déggin woowu nag discours dafa nekk loo xam ne nii ba àddina sosoo ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo te ba léegi ñëpp ngi jëfandikoo képp koo xam ne nii am nga maanaam yonent boo war a jàllale maanaam message boo xam ne ni war nga koo jël jox ko ñeneen képp koo xam ne nii dangaa am looy woote te bëgg ñeneen ñi topp la danga jëfandikoo discours moo tax yàlla wax ci yon lisaano ci wàlla wax ci yonent yàlla daawuda ne dama koo jox xikma ak faslal xitaab mooy discours boo xam ne ni bu jàllee day leer nañ te day wax dëgg gi ñëpp xamandoo ko kon jumtukaay la boo xam ne nii ñëpp koy jëfandikoo képp ko am woote booy woote wala message boo bëgg mu jàll dangay nga jëfandikoo discours kon nag orateur bi te mooy kii def discours bi foofu day nekk koo xam day tegtale aw yoon aw yoon lay wane aw yoon lay tegtale te nag ku nekk la ngay tegtale yaa ka koy jëfee yéen a bokkub àtte ci misaal tey man su ma doon tegtale yoonu tegu ci jub yoonu mbaax képp ku jaar ci yoon wi lam cay amee ci yool man mii dama ko ci am waaye su ma demee safaan bi tam wax loo xam ne nii nit ñi dañ ciy jaar ba ak yàq juddoo ca maanaam kooka maanaam lu mu ci am ci ak bàkkaar yow mi ko tegtal yoon wi tam da nga ciy am bàkkaar loolu nag foofu la ñuy gisee nekkoon képp ku yor micro di orateur di wax ñu lay déglu am nga responsabilité bu mag a mag boo xam ne nii gàll na ci saw loos xam nga ko wala xamoo ko nag leneen la ndax wax nañ ne discours bu nekk day am lu mu làmboo nga bëgg koo jox keneen ki ngir bàyyi ci moom jeexit kon li ngay ñëkk natte sa bopp. mooy su fekkente da ngaa wax ba noppi li nga wax bàyyiwul benn jeexit mooy da ngaa kon jàppal na yow la nga doon wax amul njariñ su fekkente na ngaa joxe discours ba noppi tam mu bàyyi jeexit yoo xam ne nii bokkut ak dañ doon séentu ba tey da ngaa échec kon jeexit ji bokk na ci nattukaay yu njëkk yi ngir gën a mën a leeral nag responsabilité bi nga xam moo gàll ci loosu kuy joxe discours moom it dañ koy jox ci forme ay ay ay question buñ doon laaj maanaam nit ñi lislaam bi nañ ko woyefala léegi nga xam ne diine jaa ngi fi waaye dund diine daa gën a woyef suñu biir kan moo am responsabilité ci loolu buñ doon xool tey positif bi nekkoon ci mag ñi daroon seen Tuubaa ak positif bi ne ci ndaw ñi ak nit nekk ci nit ñi jamono yi lu tax positif ba gën a dëgër bii lu tax maanaam taayife maanaam kuréel yi ñi séq diine ji ba noppi nekk ay kuréel ci biir lu tax ñuy am ak noonoo ci biir ba ñaari ñoo xam ne ñoo bokk lislaam waaye bokku ñu yoon wuñ jaar ci biir lislaam di ñàkk a mën a bañ a toog waxtaan kan moo am responsabilité ci maanaam débat boo xam ne nii du jur dara tey ñun bu ñu toogee la ñuy waxtaane mooy lan mooy sikkim bu gudd ak bu gàtt yëre bu gudd cëkkal ak bañ a cëkkal julli julli maanaam banque say loxo ak tàllal say loxo maanaam détails yoo xam ne nii yu ndaw ndaw la par rapport ak yu mag yi nga xam ne mooy xool mooy xaar jullit yi tey duñu waxtaane ci réer gu mag gi ci jullit yi àdduna booy xool tey réew yi ëpp gën a néewum njàng réewu jullit la nga koy fekk tey booy xool àdduna bi wéréd yi nga xam faagaagal nañ ko bu yàgg ci yeneen dëkk yi ci réewu jullit nga koy fekk muy faagaagal nit ñi sibru choléra ak yu mel noonu boo doon xool tey ñàkk nit ñu amul dara ndóol ci réewu jullit yi ci la gën a amee doole te muy ñett yoo xam ne nii askan wu mu daje balaa bàyyi da leen a faagaagal muy réer ak ñàkk ak wéréd lu tax mënuñoo toog débattre discuter ci maanaam défi yu mag yooyu nga xam ne moo ñuy xaar xanaa ñu ne ko fa kupp di waxtaane yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ay détails yu ndaw a la loolu kan moo ci am responsabilité dañuy gis ne kon responsable mën naa yaatu waaye discours bi discours diine bi ñu yore ñun li cëp ci la bokk ndax débat yooyu yëpp ñu koy ñu koy yëkkati di ko tasaare ci biir jullit yi mooy jullit seen bokk ñoo koy def kon loolu discours bu jaarut yoon moo ko indi suñu biir te koy def moom moo ci am responsabilité tey ñi yor discours bi ci yoon ci ci diine ji ba noppi muy jur lu mel nii ñoom ñoo am responsabilité ci loolu boo ñëwoon ci discours social bi tey maanaam nit ñi lu tax nit ñi ak naafeq tasaaro suñu biir maanaam nit kiy wane loo xam gëmu ko wala muy doxe noo xam ne nii du pas-pas du ngëm lu tax bopp sa bopp gu ëpp fës ci ñun léegi lu tax ku nekk di xool sa intérêt rek waaye doo xool intérêt mbooloo lu tax ñi ku nekk di wane sa bopp damonte suñu biir fa nga bokk wala yaa ngi damoo ci alal ji nga am wala lu mel noonu man-man yi nga man loolu tam daañu gis ne mën naa am responsabilité yu baree bari waaye discours social bi ñu yore di cëpp moo koy indi ndax xam nga ne discours social li muy jariñ mooy li ñuy wax socialisation mooy génne nit ci bàyyi ma yóbbu ko ci nite tey nag bu ñu xoolee ñun suñu discours bi li ko lal yëpp mooy baat yoo xam ne nii miin nañ ko ay njariñ loo fekkee ku falfalu yu mel noonu yu tasaaroo suñu biir moo indi léegi lu mel nii kon responsabilité ñi yore discours boobu day daal di feeñ foofu. loolu mën nañ ko topp ba ci ñi yore wàllu politique bi di yëngu ci politique nga gis tey ku kuñ ne politicien nga day mel ne dañ laa xas ñun bu ñu bëggee wax nit dañ ko aan diw de politicien dong la. jëmmi politique ci boppam baat bi tam yàqu na yàquwaay boo xam ne nii léegi moo kuy tappale ak kuy defi caaxaan ñoo bokk maanaam kon loolu kan moo ci am responsabilité. tey kan moo tamal ndaw ñi nga taxaw di wax loo xam ne nii wóor na la di digge loo xam ne nii wóor na doo ko def kan moo ci am responsabilité lan moo tax tey ay magi jëmm di kilifa ñu waroon a roy ci ñoom ñu taxaw di jokkalante kàddu yu ñaaw ba àgg ci di xeex ak xulóo kan moo ci am di ko jàngal nag ndaw ñi ñu koy màggaale loolu tam dañuy gisee ne discours bu baaxul moo koy indi murit gii ñu nekk lu tax tey maanaam nit ñemee taxaw ci kanam murit yi taxaw ci télé wala rajo ñëpp di la déglu wala ñëpp di la seetaan ngay wax ay kàddu yu juunu yu ñàkk teggin di ko teg ci bopp maanaam di ko teg ci yoonu murit léeg-léeg sax nga àgg ci kilifa yoonu murit di ko teg ci kawam loolu ku ne xam ne bu njëkk amutoon kon lu tax léegi maanaam nit ñi ñeme ñeme ba lu leen neex wax ci yoon wi lu leen neex teg ci kilifa yoon wi loolu kan moo ci am responsabilité fi la haqiqa discours bi ñu am ñun am na ci responsabilité ndax bu fekkee da ngaa yor discours man ku ma wax lu ñaaw ma delloo la ko da ngaa yor discours wane ne man ku ma weddi sama sëriñ ma weddi sab sëriñ loolu lu mel noonu lay indi ndax ku nekk xam ne ku nekk da ngaa am nu yàlla may nu la yàlla may nga di ko doxe léegi nag ki nga jàmmaar loolu su fexee ba yóbbu la ci man nam yow bu ngeen xeexee mu gañe la ci misaal tey am na ñoo xam yàlla bindewu leen saaga mënuño saaga tey boo doon waxtaan ak mu xëcc la ba dugal la ci moom dañ la saaga saaga woo xam ne yow ngay dar say nopp ndax doo doo mën a tontu kon buñ bàyyi nañ bàyyi xel ci ne bu fekkente ne nit dafa waxe waxin boo xam dafa juunu nan fexe ñun ba wax discours boo xam ne nii discours bu tegu ci yoon lay doon teggi ne te loolu dañ ci gën a ñëw ci kanam te loolu sëñ bi daf ñu ko jàngal moom it ba tey wax ne ŋàññante ak weddente jikko yi gën a bon ci la bokk maanaam ŋàññante ak weddente maanaam ku ma weddi ma weddi la ku ma ŋàññ ma ŋàññ la nee na ci jikko yi gën bon la bokk mook ku ma dóoru ma dóoru la xeex ñooyam